الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسانو فيدو بي تي بي جسانو فيدو بي كدون جوليت كونتان لا داخ دومي جوليت مو داف لي بو نيك دانيو فوو ن توا بي ريك يومن لي واي تاي دومو جوليت بو نيك كاولاك مو داف ليغي بو ماك ديغا خامني دافوكو بور بوبام واي yow la ko liggéeyal ndax ku xool fii nam meloon ak nga xool ko tey da nga gis ne Kaolack am na doom boo xam ne tàmbali na liggéeyal Kaolack yàlla nekk modèle ñu bëri roy ko ci biir Kaolack bañ def lu mel nii projet baa ngi nii pare na alhamdulilah rabbil alamin gis nañ ko tey képp koo xam ne jullit nga di nga kontaan di nga bég ne lii benn xale bu dëkk Kaolack doon jullit moo ko def waaye képp koo xam ne itam taalibe Cheikh Ibrahima di nga kontaan ndax tey wone ne ne man Cheikh Ibrahima dañ ma tuddee te Cheikh Ibrahima doxam ci àddina yëpp luy jëriñ doomu aadama yi rek luy jëriñ doomu aadama yi ci seen diine luy jëriñ doomu aadama ci seen àddina loolu moo doon Cheikh Ibrahima bu fekkee moom lañ la tuddee tey nga ñëw jëmbal jëmmal Cheikh Ibrahima ci liggéey yi mu daan liggéey pour jëriñ doomu aadama yi dëgg-dëgg tey képp koo xam ne aju nga Cheikh Ibrahima dina gis ne Cheikh Ibrahima mi ngi nii feeñaat na ci façon boo xam ne du moom lañ ko doon xaar mu feeñee fa waaye feeñee na parce que lii moo doon bëgg-bëggam ci nit ñi defal leen loo xam ne def leen di jëriñ ci seen bopp doon loo xam ne itam daf fiy nekk rek ba mu soob yàlla ndax kenn dootu ko mën a génne Kaolack Kaolack la dëkk lii njëriñ bum nar a am itam ku nekk xam na ne waa Kaolack ñoo ci jiitu te loolu bokkoon na ci ittey Cheikh Ibrahima jéem na def projet yu nekk pour dimbale waa Kaolack waaye projet yooyu mu doon gént bëgg koo def ci la moo njëkk a def fi ay banque banque banque kii dimbalante yi moo ko njëkk a woote këram ba léegi coopérative la tudd kërëm bi mu dëkkoon ba léegi coopérative la tudd parce que dafa waxoon ne nit ñi dëgg da diine jar na ko waaye liggéeyal sa àddina itam jar na ko jéem na def na ko waaye moment booba nit ñi àgguñu foofu tey bu fekkee turandoo mat na ba àgg ba loola mu doon gént mu defar ko kon Cheikh Ibrahima ñu ngi lay wax félicitation ñu ngi lay wax jërëjëf ñu ngi lay wax yal na la yàlla yokk ni nga kontaanloo xolu waa Kaolack yi xolu Sénégal yi yal na ko yàlla feeñal ci yow muy ay barke yoo xam ne dafay génn rek ñeel Kaolack yëpp waaye ñeel senegal yëpp itam te loolu lu mën a am la ñu ngi kontaan ci yow ndax tey doomu Kaolack bu am njëriñ wane na ne doomu Kaolack nii la war a mel doomu Kaolack nii la war a mel dooru doomu Kaolack dafa war a am njëriñ dooru Kaolack dafa war a xalaat fekk juróom fukki kaw ci kanam mu liggéeyal ko ndax fi mu nekk nii suñ sët yi ñuy juddu dèjà liggéeyal nga leen te ak ndax bu ñëwee fekk fi suñ maam yi suñ bàyyi yi ñooñu ko fi liggéeyal bu boobaat dinañ am jom yoo xam ne ci ay parent yu kawe ci lañ bàyyee ko bu ko defee liggéey mën a dund ci ñoom mën a dekk ci ñoom ba nga xam ne dañuy yokk waaye dootuñu wàññi boo ne tamit ci loolu waa Kaolack ñu ngi lay wax jërëjëf Baye Ciss eh, mbooloo maa ngi nii ñëpp ñu ngi daje gis nañ ko ku nek sédena ci bésu tay bi ne kawlax amna lu fa xew kawlax amna lu fa bees liggéey yi mu fi liggéey ci ay jamono ci gannaaw ben nit sénégalais xalaatut ne loolu nit ku ñuul mun na ko taxawee ndax tubaab yi ñoo fi nekkoon dan ko taxawé gannaaw tubaab yi itam gisuma ci Sénégal yëpp itam liggéey boo xam ne am na ci benn région ci région Sénégal yi boo xam ne doomu région ba moo ko taxawee bu mel ni bii loolu itam ban bay siis yaa ko njëkk a def bon yaa ngi jàngal Sénégal yaa ngi jàngal Sénégalais yi yaa ngi leen di xamal li nga xam ne war nañ koo def pour seen réew war nañ koo def pour seen bopp yaa ngi ko def ci dimbale nit ñëpp te feeñoo ci ku fi ñëw te roñ na bay siis a ngi nii doo ko xam parce que xam leen ma taxul muy liggéey dafay liggéey pour jëriñ nit ñi donc bon jarul mu feeñ waaye nañ gis nim liggéey nit ñi lan la loolu itam ñu ngi la ci ndokkeel ñu ngi ñaan yàlla itam gis yeneen xale fii ci Kaolack dinañ am nga nekk seen model danañ am itam bëgg-bëgg li nga xam ne def nga ko benn xale yi itam bu dëkk Kaolack gént ñaareel ko nekk sa nekk sa seexandoo ñu ngi yaakaar ne loolu di ko ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla may kuy bëgg a liggéeyal sa réew nii nga koy liggéeyee da ngay def ñu gis da ngay def ni ñëw leen xool te li nga liggéey yépp bu ci nekk njëriñ la pour ëllëg njëriñ la pour sa sët bi ñëw sa sët sët bi ñëw dina ko fekk kenn mënatu ko fay jëlee Kaolack la dëkk waa Kaolack a ko moom waa Kaolack a koy jëriñoo loolu doon na mbirul moo xam ne du dagg mukk la àddina te loolu la yàlla may nga def ko yàlla moomu la may nga def loolu may la xol boo ko defee may la loxo yoo xëccee ba indi def ko may la itte joo ko indee ba def ko dëgg-dëgg Baye Cissé ku la wax félicitation teg na ko palaasam ah sànniwu ko euh, ñu ngi gërëm mbooloo mi nga xam ne itam ñëw nañ pour teewee bi pour gis ko pour kontaan ci réalisation yoo xam ne seen benn concitoyen def na ko ñu ñëw won ko ne kontaan nañ ci sa liggéey ñu ngi la ci ñaanal yàlla comme ñu wax ñëpp ku ci nekk ñaanal nga ko yàlla ñu ngi lay ñaanal yàlla fi nga bëgg pour Kaolack fi nga bëgg pas pour Kaolack rek mais fi nga bëgg pour Sénégal yëpp itam ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga yóotu indi foo ko bëgg a yóbbu ah indi ko Kaolack indi ko Fatick indi ko euh, su euh, région bi yëpp nga yëkkati ko taxawal ko ba nit ñi fàtte tàngaayu Kaolack seet si seen njëriñ fii te loolu mën naa am tàngaay bi ak ñàkk njëriñ bu bëri bi rek moo tax nit ñi di daw mais bu fi njëriñ bi ñëwee rek tàngaay bi léegi mu jeex nit ñi ñëw deel si Kaolack ñu tabaxaat suñ Kaolack li nga xam ne lañ ko war a tabaxee ñu ngi ñu ngi lay ñaanal yàlla di kontaan ci sa liggéey euh, ni nga xam ne dëgg-dëgg kontaan loo nga doomi lislaam bu nekk doomu lislaam bu gis lii ne benn jeune musulman moo ko def vraiment di nga kontaan ci sa xol ku gis lii gis ne turandoowu Cheikh Ibrahima moo ko def du tumuranke ci yow parce que Cheikh xam nga Cheikh Ibrahima mooy kan te moom mooy sama sëriñ mooy sama modèle li mu bëggoon defal nit ñi dinaa ko jéem pour def ci suma kemb kàttan def nga ci sa kemb kàttan yal na ko yàlla gën a yokk ah ci gërëm euh, mbooloo yi fi toog yëpp ñu ngi euh, ah ñu ngi gërëm imam Cheikh waa ji mu ne imam Cheikh imam Cheikh ëpp na foofu Ah, waaye ñu ngi gërëm gaa yi nga xam ne teew nañ fi yëpp defe naa monsieur le ministre ah le ministre ak euh, monsieur le gouverneur ah ak euh, maire Ndiaffate bi ak euh, waxtaanam bu kawe bi ak Pape Demba bi tey te Pape Demba bi tey suma doom la kenn mënu ko fàtte kenn mënu koo ñàkk a ñaanal kenn mënut fàtte moo Ndiaye Rahma waaye maa ngi leen di ñaan nag. yi gën a ëpp ci yéen ay politiciens lañ tëral leen politique fële roy ci xale bi ndax ngeen defar kaw ndax lu ñu gis. jërëjëf ndax ndax ñu xam lu ñu ñu ngi leen di ñaanal yàlla jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf waaye ñun ñëpp ñu tàllal imaam ñaan ba nuppi ñu doog a waxtaan wi ne ñëpp tàllal. ubbil ma ubbil ma beneen micro bi ubbil ma ko.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 وبالوجه الذي لا يبلى وبالحياة التي لا تموت وبالصمدية التي لا تقهر وبالديمومية التي لا تفنى وبالاسم الذي لا يرد أمين وبالربوبية التي لا تستبدل تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأن تقضي حوائج الجميع بجاه النبي الشفيع صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين alhamdulilah rabbil alamin na nga jëf laa ilaha illallah laa ilaha illallah waa Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak baax yéenay liggéey faydu baay bi si di barahama Kossy TV am ngeen jaara baay bi Sidi Barhama ñu ngi gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa